était une grosse farce et qu'ils allaient échouer sur ce plan. Alors Mambaïnian a été activé. Il est de l'État, il est du parti de l'État, il a les mêmes intérêts et il est dans le système. Alors, il a déposé une plainte. Cette plainte, en moins d'un an, a brûlé toutes les étapes. alors qu'il y a des procédures qui dorment 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi Parce qu'il faudrait avoir sur le plan juridique le moyen de justifier sa non-participation aux élections parce que parce qu'il serait frappé effectivement de déchéance. Il s'est trouvé que les premiers juges, en rendant leur décision, l'ont bien condamné, mais dans des limites qu'ils estimaient, eux, raisonnables. Le ministère public et Mambaïna ont interjeté appel pratiquement dès les premiers jours. Et 17 jours avant même que les délais d'appel ne soient épuisés, l'affaire a atterri au niveau de la cour d'appel et remake. Mais là, le juge a justement calibré la peine sur un quantum permettant à Ousmane Sonko de ne pas de, euh, permettant effectivement à Ousmane Sonko de rentrer dans le cadre d'une inéligibilité. il faut que l'on comprenne. un complot d'État là. J'ai dit que c'est un système, un complot d'État, des procès qui sont fabriqués, des procédures qui sont violées, l'ensemble des droits n'ont jamais été respectés et je ne rentrerai pas dans les détails parce que l'horreur est de dire que Ousmane Sonko a eu ses avocats présents à la barre, en audience, où la cour d'appel effectivement juger cette affaire. Et tout le monde sait que c'est faux. Et pourtant, cela est écrit. Par ailleurs, il y a aussi, je dirais, des mensonges grossiers que l'on retrouve dans la décision. Mais ce sont des détails, je n'y reviendrai pas, et ce sont des moyens qui doivent être aujourd'hui jugés. Maintenant, il y a une dernière étape, c'est en fait la Cour suprême. Parce que la décision de Mambaïna ne peut pas avoir une valeur juridique utilisable par le système politique s'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Voilà ce qui est recherché. Donc il faut que la Cour suprême s'appuie. Et c'est la programmation d'aujourd'hui où la Cour suprême devait en fait se prononcer. Il se trouvait que les avocats de M. Ousmane Sonko ont déposé une exception d'inconstitutionnalité. Et c'est à loi qui dit que devant la Cour d'appel, vous pouvez saisir, soulever une exception d'inconstitutionnalité, vous pouvez aussi le faire devant la Cour suprême. Alors, la conséquence, c'est que la Cour suprême ne peut pas, en droit, aujourd'hui, rendre sa décision. elle ne pourra rendre sa décision que dans un mois. Donc la question des candidatures sera dépassée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est en alerte pour savoir est-ce que la Cour suprême va respecter la loi sur le Conseil constitutionnel, sa propre loi organique, sa propre jurisprudence, où elle dit que si, au cours de l'instance, une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, elle vérifie seulement sa compétence, la recevabilité du recours formé devant elle, puis après cela, elle a l'obligation de sursoir à statuer et de renvoyer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel aussi, dans sa jurisprudence, a dit que la Cour suprême doit veiller à vérifier ces deux éléments, la compétence et la recevabilité. En dehors de cela, elle n'a aucune compétence. Donc, moi, en toute honnêteté, en toute honnêteté, je ne sais pas, je ne connais pas cette procédure actuelle qui en fait est en cours. Parce que joindre l'exception au fond, cela veut dire que tout sera examiné par la Cour suprême. Alors que la Cour suprême a déjà examiné sa compétence. Si, en fait, elle ne l'avait pas examinée, l'audience ne serait pas tenue par une simple ordonnance. Elle aurait effectivement évacué la question. La Cour suprême a réglé la question de la recevabilité du point de vue de sa loi organique. Parce que si, en fait, il y avait la déchéance ou la forclusion, la question de la recevabilité du recours s'opposant par simple ordonnance la Cour suprême aurait effectivement notifié au parti la déchéance ou la forclusion. Elle ne l'a pas fait. Donc du point de vue procédural, aujourd'hui la Cour suprême sait que ces questions sont évacuées et qu'elle devait, après les rapports, entendre les partis sur l'exception d'inconstitutionnalité et maintenant renvoyer devant le Conseil constitutionnel en sursis avec un sursis à statuer. donc donc donc pour l'instant pour l'instant les avocats de monsieur Ousmane Sonko ont plaidé en ce qui me concerne je ne suis pas entré dans le fond je m'y refuse parce que du point de vue de la procédure pour moi c'est une absurdité et c'est un piège aussi à con elle doit se prononcer sur l'exception et on saura quels sont ses arguments maintenant il reste, il y a une pause. Ce, sera les, seront les avocats de la part civile. Ensuite, le ministère public. Il n'y aura pas de réplique. La Cour rendra alors sur le siège sa décision ou bien elle fixera une date de délibération. En tout état de cause, je ne suis pas rassuré parce que du point de vue procédural, la pratique d'aujourd'hui, je ne la connais pas. ci wolof ci wolof euh, que gis nañu ne dugal ngeen euh, exception d'inconstitutionnalité mais juge bi dafa décider da koy booleeg fond. waaw léegi ah. liñ ciy wax moom moo di que ñëpp xam nañ ne que état bi lu ne mu ngi koy def pour que Ousmane Sonko bañ a dem élection ci loolu la sanc ay complot complot bu njëkk bi moom moo di complot Adji Sarr wante complot Adji Sarr ba mu jógee ak ba ñu gisee ay déclaration yi aji doon def ak li ñu xam ci dossier bi leeroon na leen ne lii du mën a def ci kaw loolu ñu jóg ci li nga xam ne que euh, Ousmane Sonko ci benn déclaration dafa nekk am na am na benn rapport boo xam ne que dafa jàpp Mame Mbaye Niang maanaam ci gestion ba nga xamee ne que mu ngi yore woon Prodac mu ne loolu en fait ay tuuma la Mame Mbaye Teye Niang jóg porté ko plainte ñu jàpp ne que plainte boobu bu fekkee ne que condamné nañ ko ak ni ñu bindee euh, suñu code électoral mun nañu jaare foofu fàtte affaire Adji Sarr ba pare aw foofu pour que Ousmane bañ a mën a dem élection foog nit ñi comprendre loolu mooy waral mooy waral dossier Mame Boye Diao léegi nag ci kaw lool li ci xew yëpp gis ngeen jalgati nañu yoon tere nañ ko dem audience atte nañ ko ci atte yoo xam ne que bu fekkee ne tey jii xamoon ngeen ni yoon di doxe ak atte yi niñ ko defee bu boobaa da ngeen jomb léegi nag cour d'appel lii lépp ci benn at la alors que Sénégal yi yi may déglu xam nañ ne que ñu bari ñu ngi fi ay ati ati ati ati at ñu ngi seeni plainte tribunal demul fen walla mu ngi sox kon loolu lan moo ko waral li ko waral moom moo di que affaire Mame Mbaye bi dafa doon un système boo xam ne que la ko yëkkati ak la koy doxal moom moo di que faw affaire Adji Sarr demul bii nañu fexe ñu langaamu ci pour que ñu mën a tere Ousmane dem élection foog nit ñi comprendre léegi nag ci kaw loolu am na ci maanaam xam-xam loo xam ne que bu fekkee ne que ci attekaay bii ñu nekk loolu dugg na ci seen nopp tegu na ci seen bët amuñu sañ-sañ ate atte bi dañ ko war a jébbal li ñuy naan conseil constitutionnel ñoom ñoo war a mën a xam loolu ndax dañu nekk mënu leen nekk ci réewu démocratie boo xam ne que nit ki da ngeen koy xañ mu am sañ wax ci réew mi ci doxalinu réew mi wax ci ni nga xam ne noonu la nit ñi yore ak sàmme koom-koomu réew mi ak ni ñuy doxalee maanaam ni ñuy sàmme doomu aadama yi loolu moom mooy li nga xam ne bu sañ boobu amul loolu tekki na ne que ku mu neex mun nga luubal alal ji ku mu neex mun nga maanaam doxale yow sa ministère nu mu la neexee kon démocratie du doxee noonu léegi nag ponk bi nga xam ne moom lañ ko toppee dañu nekk moom moom ci boppam dafa ne ormaam dañ ko yàq maanaam dañ koo tuumaal wante juge bi de yemul ci ormaam moom Mame Mbaye Kane Niang ne dañ koo tuumaal mais dafa ne ormaalu Mame Mbaye Kane ministre la mu doon ministre donc moo tax ñu tuumaal ko kon xam ngeen ne foofu yokku na ci loo xam ne nekkul ci te loolu li tax mu yokk ko ci da parce que daan boobu moom moo gën a diis daan bi nga xam ne moom la ñu war a mën a daan bu dee da nga wormaal rek maanaam citoyen ordinaire léegi nag fii wax ji agsi fi su fekkee nekk atte nañ ko tey bu boobaa ñoom dinañ jéem a nekk léegi affaire Adji bi nga xam ne léegi dee na huit Adji Sarr ci boppam fàtte nañ ko utiliser nañ ko nañ ko waroon mun a utiliser ba xam ne que mënatu leen amal njëriñ bu boobaa décision bi ñoom la ñuy seet naka lañ ci langaamoo pour que Ousmane ko ñu ne ko am nga condamnation boo xam ne jeex na kon boog mënatoo bokk ci élection présidentielle bi te nag atte bu njëkk bi boobu mënoon a dem élection bu ñu ñëwee ci ñaareelu atel bi nga xam ne que fukki fan ak juróom-ñaar rek moo dox ci diggante ñaari ci euh, ba ñu joxe appel ci euh, ba ñu attee ak ba dossier bi demee cour d'appel foofu la ñu jël wëlbati yëf yi ne léegi au lieu de ñaari weer. léegi liñ ko tëj moom moo di juróom benn weer yu mu dul tëdd te yoon dafa ne que bu fekkee ne que tëj nañ la lu mot juróom benn weer donte doo ko tëdd yow mënatoo nekk ci élection présidentielle kon gis ngeen fañ ko jëlee taw yi ñaar ba juróom benn pour mu yem net yaakaar ne mun nañu nag Sénégalais yi parce que dañuy naan kon ko tëddul kaso rek baax na alors que ñoom li ñuy dox ñu koy doxal léegi nag foofu nag sañ-sañu doomu aadama ci réewum démocratie pour kë nga mën a joxe yëkkati sa kàddu ci ni ni ñuy doxalee maanaam réew mi mun a yëkkati sa mun a yee nit ñi mën leen xamal dégg nga ci li nga xam ne que noonu la ñuy dox ci doxalinu réew mi loolu foofu la ñu tënk wax ci ndax dañu ne que ministre la te ba nga xamee ne ko moom. dafa yore woon ay koom-koomu réew mi foofu la luubal bi am kon pour que nit ñi yëg ko yëgle la te loolu droit yoon dafa nekk bu fekkee ne que loolu ci amee ci réew mu démocratie nit ki mënuñu ko topp ab droit la léegi nag constitution biit dafa nekk loolu dañu ko sàmm ku ci ne war nga mën a jóg wax yow la nga xalaat ci doxalinu réew mi ak ndox mi réew mi naka lañ koy doxale kon mooy charte bi gën a kawe ñu tënk ko foofu nag ne kon yéen mënu leen atte loolu tànk ñi kii nga xam ne moom mooy xool yoon loi bi ndax méngoon naa constitution kooku xoolul ponk bi nga xam ne moom lañ topp Ousmane Sonko ndax bokk na ci li nga xam ne que euh, si sañ-sañ la bokk sañ-sañu doomu aadama ci réew mu démocratie wala bokkul ci sañ-sañu doomu aadama ci réew mu démocratie kon boog tey ñoom mënuñu koo atte ci yoon su fekkee atte nañ ko tey jii ah man de la ma xam ak li ñëpp xam te ñoom seen bopp yi atte yi nga xam ne atte nañ ko fi nekk bu fekkee nekk wax ju mel noonu yëkkati nañ ko seen kanam amatuñu sañ-sañ wax ci wax ji donte conseil constitutionnel waxul lan la ci xalaat su fekkee ne que nee na que méngoowul ak charte réew mi bu boobaa wax ji jeex na la ñu woon yëpp day saa yi day mel ni que musuta am et que loolu dañ koy dindi ci maanaam loi yi dootu ci bokkati su fekkee ne conseil constitutionnel nee na que méngoo naag charte réew mi ak engagement yi Sénégal am booba la bi di ñëwaat cour suprême war koo mën a àtte te loolu diggante bi lu mu gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw dégg nga yoon dafa nekk ci biir weer wi ci weer lay doon kon dina fekk élection yi weesu na na nga xamee ne que noonu la waxu aji Sarr saaye amatul benn solo noonu la wax ji di saaye amatul benn solo kon boog kon tey ji nit ñi xam ne que bés bi bés la boo xam ne que attekat yi ñoom ñooy jël seen responsabilité la nga xam ne loolu lañ mës sa atte la nga xam ne loolu la yoon tëral ñu def ko ne wax ci fi mu ne aj nañ ko ba conseil constitutionnel wax nii nag muy doxee ñu ne que dañuy boole wax yëpp wax bi nga xam ne que dañ ko war a jëbbal conseil conseil constitutionnel walla ak dañ ko war a atte ba mu jeex lii ngeen di ñaxtu fii yëpp lañuy boole door di joxe suñu atte dama ne doxalin boobu pour man doxalin la boo xam ne jànguma ko te xaw ma ko te tey na sama xel. Euh, sila del waxaale voilà euh, ki nga xam ni euh, mooy euh, avocat Ousmane Sonko maître Ciré Clédor Ly kaddu yi nga xam ne